téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte nag ak contentement rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk di leen wax dal leen ak jàmm ci seen journal de l'arène tey ngeen ci ànd ak Ami Diouf waaye ba tey rek sama côté maa ngi ciy am sama góor di Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami Diouf. ci loo nekk. maa ngi sant yàlla. yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi am jàmm. ànd ak leer daal macha allah. waaw merci beaucoup waaw leer ah waaw ah, merci kon comme damaa leer. waaw réew mi leer. waaw merci mais est maa la gën a leer ah, rek. ah xoolaa question la de mais maa ngi nuyu ñu suivre ah. téléspectateurs yi nañu àtte à travers Equivox TV di leen jaajëfal <laughs> mhm. ci topp beeg bàyyi xel bi parce que tamit olof ne na kiy wax ki kay déglu lu bëgg mais kiy feeñ ki koy seetaan koy dimbali mhm. kon ñoom amuñu seen fay ñu ngi leen di ziar bu a baax la voilà bu baaxee ñu dem seetaan yi revue des titres daal di les waat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 6 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy dooreetu ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu làmb nag li olof wax rek lu def waxulu ay di njàmbat li fi xewoon ci dimanche ji nu génne muy diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers de 2 combat ba daal la nu yëglikaay bi xëy tey xamal wan ñu ci aw photo daal di ne kii de Eumeu daal maanaam dañ koo acculé boxe ko blessé ko ba pare ubbi arcade ba gañe ko ne lii daal la ko Lac de Guiers numéro 2 daal di def moo tax yëglekaay bi daal nee na Lac de Guiers 2 daal mooy vainqueur boo xam ne ni daal vainqueur la boo xam ne bu bëri werantara maanaam daal ñen ña ne nañ ànd nañ ci ndam li ña ca des ànduñu ci la ñu gis parce que li ko waroon defu ko waaye Lac moom tontu na leen ne na yéen a xam de waaye man daal li ma xam ba xam ko mooy man Lac de Guiers numéro 2 bi mooy sama meilleur combat ci sama ay combat ndax nag sama adversaire fu mu ne maa ko fa fekk di ko dóor di ko yóbbu ardo di ko yóbbu ci saaku yi ba combat ba jeex ma gagné ko kon ne na moom moom amul lenn loo xam ne mu ngi koy rëccu ci combat bi te nee ba muy ñëw nag maanaam baaram bu damm la bëresee moom mi nga xam ne nii moom moo di Lac de Guiers numéro 2 yëglikaay bi moo xëy tey seq ak moom wax ju mel ni ki noonu mu mel ni ki nag kii di Eumeu seen moom yëglikaay bi la mu jàpp ne ne Eumeu daal kere moom maanaam xàmme sax lees ko deful ndax Eumeu seen lan ko xamee woon mooy xeex maanaam raak andi taay si nga ja dal si sa kaw waaye bii paase nag moom ah loo ci mën a dégg moom maanaam daal dafa lal taay taxaw fa mu taxaw yëgle kay bi su làmb nag moo ko wax du sama ay wax mel ni ki biraa seen ma jiite làmb ja wax na ca mbir mooma dana na bi daal loola waaye mën a wax lenn dong nga ci am calcul ba moo bëri woon ku nekk daal am na loo doon moytu di ko xalaat ak di ko kalkin am na ñoo xam ne moom ca bés la ñu bëree muy jën kayra ak Modou Anta yëglikaay bi ñu ne ca ba donte bëri nañ fukki minutes ak ñett muy treize minutes loo ci mën a dégg moom jën kayre maanaam def na exploit bu rëy ñoom la lag ak Eumeu def moom dañu koo romb ndax ñoom dañoo xeex xeex bu tar bëre bëre bu méttee métti Modou Anta Diène Kaïré daan ko jël bu rëy rëy keneen koo xam ne tamit bés boobu ñëw na ca moom Balla gay numéro de ak Bombardier yëglikaay bi dina Balla daal soo ba mu def ca fa nga xam ne mooy arène nationale moo fa des tey moom la ñëpp di waxtaane Balla gay daal moo dugg si rek yëngal la nga xam ne nii moom moo di arène national ba tey bu nu continuer ci mbir moomu record la ñuy dem mel ni ki nag daal loolu ci mën a dégg moom Eumeu Sène ak Lac coow la mu nga jares ba tey ci bisu indépendance record a xëy ñëw tey dinu ko wax waaye jën kayre moom yëglikaay bi na daal gën naa yëg ca kaw marqué ay point moom yëglikaay bii di record moo xëy ñëw tey di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey ci combat boobu mel ni ki nag waa tay si nga moom du ñu bàyyi mu sedd ndax lañ jàpp daal ne nañ ñoom daal recours la ñuy déposé ndax nag maanaam avertissement bi ñu leen mujjee jox muy ñeenteelu avertissement bi tax ñàkk combat bi dañoo jàpp ne loola du aw yoon tey suba waxi noppi mel ni ki fi mu nekk nii ñaari mbir tamit boo bëggee dégg-dégg ba tey record xamal nañu dal ku ci nekk des na la dagg lu toll ci un million yu tegal yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu Lac de Guiers numéro 2 ab damm-dammam record xëy na tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu beneen combat boo xam ne ni moom ku yeboo xaar ko te xam ne bés bu ñëwee yaakaar naa ne doo ca gis niil wala calcul ndax ku ci ne ci sa morom maanaam yàkkamti ngaa jot sa morom muy combat boo xam ne muy muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé te Luc Nicolaï tëgg booba combat yëglikaay bi tey xëy na nu xam ne daal jàkkaarloo ba tey moom li am ba des ku yebu xaar ko 9h maanaam 21h ci guddi ca seen TV ñaari mbëre moom daanu jàkkaarloo muy jàkkaarloo bu njëkk lu sénégalais yi nam namoon te buñ jàkkaarloo ku ne xam na ne daanu waxante te ñoom ñaar bés bu arbitre génnee seen diggante lu waaye doon jaay day lamb ndax ku ci ne rénkum ngay def ci sa kaw morom dal ci kawam maanaam foofa moom calcul di sunu làmb moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu waaye loo ci mën a dégg daal xaw ma calcul xaw ma ñàkk a waaye xaar leen ko ngoon lay doon jàppal vingt et lay doon ca seen TV moodu Lo lay doon le roi des arènes Ama Baldé sa lubu ndaw borom Pikine ku fa jaar lig Nicolay waaye am na beneen rendez boo xam ne bu rëy rëy la bu desati le 10 avril bawal sans frontière la nu wax Fallou Ndiaye fa jaarati ak 4 million lambi simple képp kuy bawal bawal wala ngay sénégalais itam booba bés moom boo yeboo nga bàyyi ko am xel yow mi nga xam ne yaay gomis nekk ci caméraman bi waaye Ami Diouf na mu mel tey daal loo ci mën a dégg ci jiin doy na waar ba yegg ci lool voilà mu nekkoon euh, revue des titres ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb Babacar ci xëtam bu njëkk. Mhm. mu daal di ñëw ak ñun na ci combat bi nga xam ne nag moo amoon barki démb diggante Lac de Guiers ak ki nga xam ne moo di Eumeu seen mu indi nag polémique. Euh, ki nga xam ne moo di euh, Eumeu gis nañ ne dóor nañ ko blessé nañ ko waaye nag combat bi dafa xaw a takku suuf ndaxte ki nga xam ne moo di lag de Guiers vraiment wax ji bëri na ci gaa yaa ngi polémique ku nekk. di ci wax ki nga xam ne nag moo di Ibnu Diop moom nag nee na je ne trouve pas juste les avertissements de de l'arbitre mooy avertissement yi nga xam ne. waaw euh, voilà moo ñàkk loo ëmb seen. waaw man balaa may sori foofu sax ami damay nuyuwaat ñi ñuy suivre ci Equivox TV mhm. di leen xamal ne bu ngeen ñu déggulee si mhm. combat bi mhm. parce que ñu bëri ñu doon woo di ñu laaj ak yu mel ni ki noonu. mais du suñu coobare ndax bu ñu sañoon fu làmb nekk rek danañ fa dem andi leen fa ay image. ngeen ni ngeen koy xame mais bon dafa fekk ne nit ki nga xam ne moom moo organisé bésam. di suñu mhm. papa Gaston Mbengue ñu koy nuyu di ko ziar. Mhm. moom moo jëloon décision wu ni presse en ligne bi du leen dugal ci làmbam mhm. te nit itam nag su amee ay yëfam du ma la ci dugal doo ko ci mere nga ko ciy xarab parce que ay droit am la bëggoon nañ ko nag couvrir mhm. waaye loolu moo tax mhm. mënuñu ko leen lu dul a def lu topp ci tànk yooyu mais du tere ñu ñaanal ko yàlla mu réussir bésam comme ni bés bi amee yaa ngi dégg loolu moo tax gisu ngeen ñu ci ci combat bi du tere nag dinañ ci wax parce que li tax mooy ñu ci làmb lañ nekk ñaari mbër yi mhm. muy Eumeu Sène muy Lac yàlla dogal na ci seen ci dogalam que ni seq nañu ak man mhm. wala ak relation la mhm. donte liggéey la ñu seq ci biir làmb waaye relation bi rafet na ak mbër yépp nekk ci réew mi comme après nag su ma ci dikkee amee li ci am ba ñu ne Eumeu Sène acculé nañ ko boxé ko blessé ko ubbi arcade bi waaw parce que boo xoolee attaques yi yi yi yi yi nga xam ne moo ci xaw a am lakk moo ko def mhm. wax dëgg yàlla parce que nit itam da ngay wax li nga gis mhm. wax dëgg te yàlla tax loolu moo am mais xëy na dafa am lu desoon mhm. ci biir combat bi mooy lakk jël gën a jël ay initiative am

na bu ñu sañoon dañuy bëgg seetaan combat xeex am bëre am jël la am ndax daanu du gàcc xam la moo bon mhm. xeexoo bëre woo entraîné woo ñëw ñu daan dooroo atte woo voilà loolu moo garaaw mhm, mais nag boo ñëwee def sa jom xam nga mhm. Gris Bordeaux ak Eumeu Sène boobu ku ko seetaan doo leen jéppi giri daa xam na bés boobu mais kenn doo ah, leen jéppi Lac de Guiers mi ëma moom ëma seen so combat bu njëkk mhm. Demba Diop kër defe naa dañoo bëree ba tafaagee xaaju ci plateau bi mhm. ne lii mooy vrai combat mhm. ñu xeex bëri ba combat ba mat si nit nii la war a dem nii la waroon dem waaw eh. a ba tey rek ci bés boobu ki nga xam ne moo di Modou Anta euh, bëri woon na ak nga xam ne moo di Diène Kaïré Diène Kaïré am ndam bu rëy moom vraiment ci kaw ki nga xam ne moo di Modou Anta waaw bu doonu ko nag ñooñu xam naa bis bi dina gën a métti vraiment wax dëgg yàlla ñoom ñaar ay mbëru grand combat lañu mm-hmm. ñu jël toflantel toftal leen ci ñoo xam ne seen i mag lañ dama lay fàttali ne moo jéen kayre mii daan mu doon ta way juróom bi ko jur di booy kayre bëri nag ëma seen mi ca mm-hmm. Iba Mar Diop yaa dégg lamb mooy boole ku ne booy kayre daan fa ëma seen mm-hmm. tey doomi booy kayre jooju moo fekkante ëma seen ci géew di bëri avant grand combat wu Eumeu Sène moo lay wan gis nga sport nu muy mhm. doxee jën kay re tamit ak mu doonte ñekk ñaar ñoo xam ne man xamoon naa ne seen combat moom jël dafay am parce que li tax mooy mu mhm. doonte mbër bu am décision la mbër bu naqaree bëril bu mhm. teñe bu dëgër bu mën a xeex bu amu fit ñeme lool te xale bii di jën kay re tamit boo ko gisee ak yaram ak tekkaar la mën nga koo jàppe neneen waaye bandi géew la te defe naa keroog wane dafa tekkaaral nag mm-hmm. waaye ci mbër la dëgg la Moodu Anta nag démérité wul parce que dafa mayoon sens xale bi gañe na ko ñu koy encouragé di ko wax ne na waajaat ñëwaat bëri ndax ci làmb ji la bokk te xale la te itam kenn du nattable bëri Moodu Anta ndax ku mhm. dem ba équipe nationale mën nga bëri di ko encouragé mais di félicité ji mhm. dëgg la loolooy làmb mhm. voilà ba tey rek ki nga xam ne moo di euh, Balla Gaye 2 nekk nag le lion de Guédiawaye waaye gis nañ ko keroog moom itam mu offrir show boo xam ne vraiment fans yi bëgg nañ <laughs> waaw moom <laughs> ba Omar moom xam moom moom moom moom noonu la moom moom moom moom bu ay signature contrat day neex. boo ko jël interview day neex waaw su bëree tamit loolu la yàlla dogal wax dëgg yàlla <laughs> parce que olof ne na doo gis nen di ko jaaleeg leneen. Mm-hmm. Mm-hmm. moom noonu la mel ci làmb Balla Gaye mm-hmm. de nature noonu lay bëree. maanaam bu mu duggee ci làmb ba tey maanaam bu ñëwee di téye micro. di wax ak adversaire am da nga mii lu ko dal. buy buñ ko nee feccal tamit. dina yëngutu ba stade bi yëpp yëngutu mhm. waaye buñ ko nee bëreel tamit dana bëre ba ñëpp mhm. yëngutu loolu nag xëy na deretam la parce que daa donnu bëre bi waaye tamit am na loo xam ne moom talent wu boppam la mhm. moo tax keroog moo moom mook Bombardier euh, kii ami foofu moom yaakaaruma li am fa ndax li tax mooy Balla ku ne xam na ko du xaar kenn du maye dara. Mm-hmm. te Bombardier bëggu les ko may ndax moom ràññeeklewul jànj ak joor. Mm-hmm. kon dañuy daje moo tax keroog suba boobu. combat bu métti nga nar a gis foofu mënul woon a ñàkk ci diggante bii moom xalaat naa jël bu rëy fa nar a métti man man man su may seetaan lamb boo xam ne faru ak benn mbër sax damay impression mais ñaar ñii dina doy waar daal laa mujj rëy nga nar a gis. waaw ëmma ëmma ak ak ak ak moom lu doy waar. Mhm. ndax xam naa ne dañuy daje. dina dina doy waar. Mhm. voilà waaye ba tey rek bu ñu jógee ci suñu làmb dañuy daal di jàll ci record mu daal di dellusiwaat ak ñun ci combat bi nga xam ne mooy diggante Lac de Guiers 2 ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène fi ñu leen fi ñu leen doon xaar ak rang bi nga xam ne toll nañ foofu noonu gars yi ba tey ci polémique boobu lañ nekk. waaw waaw parce que ñëwuñu ñëwuñu ñëwuñu fi ñu leen doon xaar ah. mhm. ñëwuñu fa parce que tamit am na fu ñu leen doon xaar wax dëgg yàlla xalaatoon nañ ne que du ñu bëree nii. parce que surtout parce que Lac dafa am lu ko waroon ci combat bi pour man parce que mooy moom dafa jóge woon ci benn euh, défaite. mu Eumeu Sène ak benn match nii. maanaam boo jógee ci lu mel noonu pour adversaire bu ñëwee da nga ko waroon da nga war a nit ñi dañu doon xaar mu ñëw. xëy na jël si ndamam loolu la ñooñu doon xaar. Mm-hmm. waaye nag dañu gis ne même bu fekkee ut si woon na ndam itam mais xëy na calcul bi. Mhm. xaw na ci am lu mu yàq ci combat bi. ba mhm. tax na combat bi mujjee fii ëmma nag ma ñu xamoon mu daan mu amoon répondant bu wóor. Mhm. daan fekkee adversaire bi xeex ak moom itam gisuñu ko. dimanche passé. xaw ma nag manque d'entraînement la xaw ma lan la. mais man ci su ma sa jàngatu bopp damay jàpp ne ëmma seen kere ci côté entraînement moom. ba ba may gis contraire bi mu amul dama gëm ne kere entraînement am des na bërki démb. parce que ni mu bëree moom. ku ñàkk ay repère moo koy bëree. vraiment parce nit ki tamit loo ko bañ bañ waxal ko jikkoom. vraiment ki nga xam ne moo di lakk keroog non non jéem naa parce que attaqué na xeex na yóbbu na ko ardo ba ubbi ay arkaram mhm. voilà voilà ba tey rek ci combat Modou Anta ak ki nga xam ne moo di euh, Diène Kaïré waa record euh, moo di Diène sur tous les waaw parce li tax mooy xale la boo xam ne am na ginnaaw macha allah parce que booy Kaïré suma baay. ak waa Medina mhm. Gueule Tapée yi ko wër. Mhm. gëm ko mu nekk xale bu am yar parce am yar ami des fois dana dimbali nit. ci lu ci lu muy dugg te wax dëgg yàlla ñun du ñu sete kenn ay fleur mais jën kay xale bu yaru la mm-hmm. parce que ñun ñu ngi ci làmb ji dañuy jëflanteeg mbër yépp waaye booy wax ak moom sa du gi xool la mhm. te loolu rek dafa doy gàllaaj ci doomu aadama mhm. nañ ko yàlla defal mu di ab yar muy xale bu am yar defe naa itam ki mu ko séqaloon tamit noonu la mel muy du Anta mhm. ku joxe cër la koo xam ne dund Baay Faal lay dund ndax Baay Faal la kon defe naa ne ñoom ñaar nag da di bu bëree faw jël la am parce que ñoom ñaar a bokk Medina ndax Modou Anta mi jarbaatu Ablaye Mbuub la bi nga doon dégg coon Seck may dégg kon defe na waaw mu doon tajar waatam la mm-hmm. kon defe naa bu ñu bëree mu deme noonu mm-hmm. ah jéen itam gañewaat ay point parce que daan naa mu doon ta tey du lu tuuti mm-hmm. ndax mu doon tag n'importe quelle personne mu doon ta bi muy bëree ak jéen war dañ ne woon war kun ko jël parce que moo gën jéen palmarès moo ko jiitu si làmb moo ko ëppale woon lépp lu mbër di maanaam gañe ci ay trophée ci làmb mhm. mais nag làmb dafa mayante sens may na ko sens xale bi xam ne kii mbër mu mag la naa saisir sens bi pour mu yóbbu ma ci beneen niveau mhm. mas ma heureusement loolu am na ci combat bi mhm. daan na ko pour yokk yow yokk ay garaadam te muy dëgg ba tey rek ci combat Lac de Guiers ak Eumeu seen xam naa dinañ ci xaw a yàgg tuuti tey ndaxte nag bien vrai que couvrir uñ ko woon mais dafay baax ñu def euh, résumé bi aussi <laughs> voilà ki nga xam ne nag euh, ñoom ñaar ñëpp ñu gis ne ci avertissement yi ñàkk nañ ci li nga xam ne moo di ay millions voilà ba tey rek ki nga xam ne moo di Lac de tamit wane ne moom ci euh, damm dam la bëree làmb ji waaw millions yi moom xam naa avertissement yi moo leen koy yóbbee mhm. parce que avertissement am na fu muy yegg dañ lay dagg xaalis mhm. waaw kantaan nag damm-damm bi xam naa ne duñ ko ko weddil ndax moom mi na xam naa ne damm na ndax mhm. xëy ngir kii nii waaye nag lii problème bi mooy sénégalais yi koy xam da dul bëri yow bi nga ñëwee di ngemb si di bëri si rek ñun dañ naan pare nga loo fa defati lu dul li sénégalais yi jàpp ne moom nga war a def bu keroogee loo wax tamit yow lay doon du leen engagé parce que dañ la gis nga ñëw bëri si

mën a ñàkk loolu moom dina neex mooy géej gi am na ndox. parce que ñaari bëri yooyu. fit de la ñuy demee non yaay lay Modou Lo. <laughs> fit la ñuy demee de. Modou Lo aw fit ak mhm. sañ-sañ. Mhm. ak gëm boppam moo ko indi tey mu nekk roi des arènes. Mhm. xoolal mbëri yu ne ci biir làmb yi niñ toll. bu mu ci taxawal Yacoub surtout ko waaye am na jom. am na fulla am na fayda te comme li ma lay wax rek. man bu may wax si sport damay wax lay li réalité yi. du ma raay kenn mais Modou Lo jomam fullaam faydam ak fitam ak encadrement ak déglu moo ko di tey niveau bi mu toll ndax ay moromam la seqaloon li mu doon def mhm. waaye am na loo yoon woo xam ne boo ci awee mhm. mën nga sauver ba tax na tey bu nekkee roi des arènes ci làmb ji mhm. defe naa ne kon liggéey na ko yaa ngi dégg am fit lool war a bëreet koo xam ne tamit moo doo ko jiitu si làmb mhm. muy xale boo xam ne moom itam du question fàllaye sama baay rek wala Zil Baldé sama mag mhm. wala ndemti yàlla papa Baldé yàlla na ko yàlla yërëm déedéet mais ama bi mu amee loolu ba pare xamal lu mu ci dolli da cee dolli moom dem wuti ji bëree mhm. ànd ak ñeneen ñu di defanteeg ñoom ba nekk mbër bi mu nekkee mbër bi nag doon na ko si deret léegi nag mu sàmm loolu nekk xale boo xam ne maanaam dama laan na mbër mi gën a dogu ci làmb tey bu ngeen mm. tànn ñett Ama Baldé da koy boole ci mbër yi gën a dogu ci maanaam adversaire fu ñu ne mu fekk leen fa mm-hmm. muy xale boo xam ne itam jom mm-hmm. moo ko tax tey mu war a mën a bëri ak roi des arènes mm-hmm. ndax am na ñoo bëri tey mënuñoo bëri ak Modou Lo actuellement te ñoo Ama ñoo bokk génération wala ñax sax ñu jiitu Ama ci làmb kon ami looy def rek la Youssou Ndour woykat bu mag wooyoon Dakar sax boo koy jaay ami. foog nga am ful la sinon ma dina ko jeexal kon jeex na <laughs> tamit nag xam naa daal kii di Modou dina def le tout pour tey li nga xam ne moo di couronne am waaye xale bi tamit bëgg na koo jël xale bi nee na juróom-ñaar ci moom maa leen man du ma ñeexu ñebbe <laughs> kon tey ba tey euh, na boo xam ne abordé woo ko woon muy ki nga xam ne moo di Adama Diatta moom bi mooy troisième fois muy participer ci Jeux olympiques yi waaw parce que boo xoolee dañ demoon fële ca Tunis doon def ay éliminatoire mhm. éliminé. Mm-hmm. muy ku mel ni Thiaka Faye ak euh, Kële. Anta Anta dañ leen mm-hmm. éliminé mais moom moom Adama moom qualifié na am na médaille d'or ba qualifié pour Jeux olympiques yi. Mm-hmm. ak ñu koy félicité di ñaan yàlla Jeux yooyu mu dem tamit yàlla na décroché médaille olympique. ñu félicité euh, euh, tamit ñu di leen encouragé. loolu tamit mooy sport ah. voilà parce que drapeau Sénégal la ñuy défendre yi. waaw ñaanal ñëpp jàmm rek remercier ñi seetaan ci Equivox TV yëpp rek di leen wax ne ñun comme ni ñu koy waxee rek na li ñuy sàkku daal mooy ngeen ji duñu ñaanal yàlla dina may wér ak kàttan insha allahu rabbi bu loolu dee am moom làmb fa mu ne ah danañ ci jéem a dem duggal leen fa indil leen ci la ngeen soxla ndax itam nag macha allah image yi day leer yéen a koy wax te itam dinañ fexe ba ah li ñuy wax di ànd ak ab yar ak i teggin parce que réew mi nu nekk noonu la doxee mhm. du réewum ñàkki teggin du réewum ñàkki kersa mhm. parce que li ko composé moo tax réew mu Seydi Hadji Malick tëdd mhm. ci Ahmadou Bamba maam kon daal bu fekkee am na lu yar wala nu am ko ndax ci loolu lañ bëgg di dox voilà Babacar dafa am benn yóbbante nag boo xam ne foog ma jaaleel la ko sama benn nijaay boo xam ne Moustapha lay wuyoo da lay bëgg saa su nekk. moo tax tey foog foog ma wax la ko Moustapha Faye Faye Biram Mbenda waay Moustapha Faye Faye Biram parce que <laughs> sama baay sant Faye dëkk ak yaay mais Moustapha mm-hmm. Faye tonton boobu. Mm-hmm. maa ngi koy di ko ñaanal jàmm di ko wax ne mm-hmm. koo bëgg bëgg na la. yàlla na jàmmam yàgg Mouhamadou Moustapha amiin ah. voilà mbokku téléspectateurs yi fii la ñuy di yem ak tey ci journal de l'arène di leen jox dig daje rek ëllëg incha allah ci Equivox TV jërë ngeen def